benn moment ñu koy wax euh, borom KBS voyage waaw madame Touré madame Touré maa ngi koy sant bu baax borom KBS voyage xam nga maa ngi nuy bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp nag sama góora Espagne maa ngi koy nuyu di nuyu jabaram nenne ñoom ñu ngi ba Espagne quoi maa ngi sant bu baax a baax. benn combat muy le 22 diggante ñaari xale kenn ki bëri ngeen kenn ki seen combat yàgg nañ koo coow coow ko ba tey nii ah nga mujj bëri rakam Ardo Liss Ndiago le 22 Jax production woo sa père. Jax nga xam ne promoteur bu mag bi ah. waaw gis nga journée bu mag ma rek mu tëgg tamit ñaari xale yoo xam ay xale yu nekk si yoon lañ waaw Liss Ndiago koo xam xam ne bu jógee jàmm gan da koy topp xam nga Ardo tamit moom gis nga moom parcelle gis nga nu mu koy def xam nga Cambérène bu jógee Cambérène bi ñëpp ay jóg xam nga ñu boole daal ñaari xale yoo xam ne daal xale yu nekk si yoon lañ léegi lamb lamb dafa métti gis nga da nga da gis xale bu marqué empreinteem ba egg fu mu war a eggu ñu boole kaak keneen koo xamante ne ku marqué empreinteem la ñu boole leen tey dalay leen foofu noonu defet ku dina am ku daanu moo tax combat boobu day metti waaw ñu boole ñaari jàmbaar la 22 waaw di leen ñaanal nag dina wax ne këlëmeer gañ waaw këlëmeer gañ ñaari bëri xam nga seen qualité ci wàllu bëre ndax boo xoolee euh, Liss Ndiago dugg na géej waaye digganteem ak général Kayre keroog combat bu combat bu rëy macha allah xeex bëre mu daan ko jël bu amul benn werante waaye Ardo bëri ngeen te xam nga ko ndaan lañ ci wàllu bëri tey boo ñu analyser combat bi ñoom ñaar côté bëri waaw si côté bëri moom nekk na combat boo xam ne moom maanaam ñaari ñaari technicien lañ Liss Ndiago koo xam xam ne moom technicien la bërekat la te Liss Ndiago day xeex xanaa xam Liss Ndiago xeexam wane gu ko sox normal Liss Ndiago ba tey nii moom maanaam dafa am loo xam day day dafa day am combat yoo xam ne maanaam day am lu muy laaj Liss Ndiago koo xam xam ne bëre la ko ñëpp gën a xame mais xeexkat la Ardo tamit koo xam-xam ne gis nga yow Ardo gis nga ci ay dynamique de victoire la jógee nekk waaw combat wu daal bu neex la li wax ne nag Clémière gañ ñaari ndaanaan la ah, waaw daan fi saba gis nga yow Ardo sama diggante maag Ardo rek mais xoolal sama takkusaan maag Ardo bëri bu rëy boobu zéro dañoo bëri ba amateur yi jóg <laughs> amateur yi ne ñun doyal nañ ci combat bi dañuy bëri bay naaw maag moom ndaanaanu bëri kat a ngi noonu mais ñaari jàmbaar ñoo daje waa di leen ñaanal na këram yar gañ combat bu neex la. ñoom ñaar ñoom ñaar nag ñoo nduroo bëre non ñoom ñaar ñoo nduroo bëre li Ndiago dafa mën a bëre ndaanaan la mais Ardo maam dañoo bëre ci biir bëre mu daan ma mais ndaanaanu bëre kat a ngi noonu Ardo moo tax ñaari jàmbaar yu daje la barki Serigne Touba Mbacke. Mhm. tey Ardo jàpp li Ndiago lu mën a. su boobaa moom di nga gis loo xamante ni maanaam ku juum rek. après ngay comprendre quoi liis Ndiago jàpp Ardo jàpp ñaar est-ce ne ñaar ñooñu ay ay ay mbëru jàpp lañ maanaam buñ jàppee rek la ji bëree lu garaaw la maa lay wax loo xam ne ne na xola di nga neen ne a bu waxoon na ma lii ñoom ñaar ñëpp ku si jàpp da ngay def action da ngay bëre. Hmm? te parce que ay ndaanaanu bërekat lañ. barke Serigne Touba Mbacke Liss Ndiago koo xam-xam ne ndaanaanu bërekat lañ Ardo tamit noonu. billaahi ay di nga gis bëre bu rëy ñoom xeexee. waaw bu ñu xeexee moom di nga gis maanaam gu combat wax séntu ma si xeex naxante la. combat naxante lu garaaw laa la wax fii laa la ko waxee combat naxante la waaw di leen wax nag que le meilleur gagne quoi te parce que ñoo ñëpp mooy loolu waaw ay ndaanaan lañ. ñoom ñaar kan mooy favori. non amul favori. ndax ah, amul favori. non amul ñoom ñaar seen bi gis naa leen ñoom ñaar ñoo tolloo net waaw entraîné nañ nag liggéey nañ. waaw gis naa leen quoi mais liggéey nañ ñoom ñaar ñëpp waaw combat amul favori quoi lu garaaw laa la di nga gis combat bu neex te parce que ñaar ñi tolloo lañ ñaar ñi tolloo lañ wallaahi. waaw sax na dimanche waaye balaa balaa dimanche samedi am na caat Daaro gin bu yof. ndeysaan xoolal combat boobu rek di ñaanal taar caat yàlla defal ko ndam nekk booy bu jantal borom baax waaw moo gin gi yof gis nga combat boobu noonu gin bu yof ku ko xam-xam ni xam nañ ko si bëre mais ñun ñun sunu mbër lañ xam. ak qualité yi nga xamante ne moo nekk si caatu caatu yo kii caatu Daouda Fall nekk ndaanaan boo xoolee combat moo Youssou Ndour ak boo xoolee jël bu ko daan rek nga xam ne boobi ndaanaan la ko quoi te ñu koy ñaanal mu daan gin bu yoof yaa muy ko bëri la boo xam ne combat boo xam si yaakaar naa ne euh, gin bu yoof moo ko jiitu ci làmb combat yi mu bëree bëreegu ko ce que xam ngeen enjeu bi combat bi am bi combat bi am xam nañ ko gin bu yoof xam nañ ko bu baax yàgg nañ ko seetaan mais ñun Caat Daawda Fall xale la te daan nekk si yoon te day dem te du ay gin bu yoof yi nii ñoo koy téye ci làmb ah, wallaahi du gin bu yoof moo koy téye lu garaaw laa la wax booy boobu dafa nekk ci yoon te day dem wallaahi maanaam li nekkoon ci lees magam lépp a ngi ci booy boobu noonu fii laa la ko waxee nag booy am na fit mun na bëre te day xeex. gin bu nga ëppal par bi dëmb nee na bu xeexee mu duma ko bu bëree mu daal. non gin bu yoof day neexal noonu rek. wallaahi da gëm naa ne boobi dina ko juumloo hmm? mais xoolal boobi ñu mu bëral ñëpp caat daaw dafaal ndaanaan la parce yàlla booy boobu xoolal combat moo yankaaw rek mais xoolal xeetu bëre boobu mu bëree boobi day zongale lépp lay bëre te day xeex te daa ñeme doomu waay la waaw ñu ngi koy ñaanal nag mu daan gin bu yoof waaw billaahi mën nañoo séntu ñoom ñaar ñu xeex ci combat bi non combat boobu moom si xeex combat xam nga la laa caat daara faal na ko ñeent mi jàpp ko daan ko te bu ko jàppee rek da koy daan bu ko jàppee rek combat bi jeex na fii laa la ko waxee. kon gin bu yor du am ci combat. gin bu yor amul dara ci combat lu dul ñëw bàqu xëppoo ay gàllaajam taxaw arbitre ne piip kii yi daan ko jàpp ko daan ko ñun ñu dem faire suñu victoire. yombal nga combat bi te combat bi yombut de. mais damaa xam ñun qualité ñun ñun ki ñu yor laa xam man damaa xam caat daaw dafaal xam ay qualité bërëm kee seetaan naa ko moo tax combat boobu noonu bokkul daal. ñaari adversaire yi bokkul boobee xale la Thiat Daouda Fall xale la daa nekk ci yoon waaw te du kooku moo koy téye yee non du ko téye wallaahi du ko téye eh, gin bu yoof mënul téye booy boobu yow man mii rek mënuma téye wallaahi gin bu yoof barki sëriñ Tuubaa gin bu <laughs> day mujj ak Thiat Yoff gin bu yoof man wallaahi mënuma yëngal ku koo xam mënul yëngal Bou Siteu nan ngay yëngalee Thiat Daouda Fall mais gin bu yoof gin bu yoof est-ce que sama avance joxuñu ko mu ruux ñun ci làmb lañ nekk ñoo xam ne ñu lay wax wax bu si mbër yi koy xam rek sama awance amul fu mu duggul booy di delloo awance yee moom loolu ñun géejawaay lañ dëkk. man man man mën nañoo xaar combat mu ne combat bu gaaw. ñoo combat moom goo mën du du de fii laa la ko waxee nag combat du yàgg de yee du yàgg de parce que booy bi dafa liggéey ko waa bi dafa liggéey. yaa dafa liggéey lu yàgg. bi ubbeeg du Morfadam amaguñ na ñaari combat. am nañ. amaguñ na ñaari combat école du Morfadam. waaw ma xool bébé guy gi bëre na man ma bëre. Fadam Junior bëre. Fadam Junior bëre 3. 3 la. waaw. ñu am maag bébé guy gi rek ñoo fi daanu. non ak 4 safara. safara tamit bëre na daan waaw 4 4 la am. ñu am deux victoire am deux défaite maag bébé guy gi ñoo daanu mais dañuy defarul la rek maanaam du defer quoi defarul la xam nga mbër yi nga daanu nga yaakaar ne defar la mais du defet defarul la da nga defaroo xam nga rek waaw ñun ay xale lañ daal te làmb ngi si kanam ñun dese nañ lu bëri man làmb yi man maa si ëpp adversaire man sax nga man man maa nekk mbër boo xam ne mun naa bëri ay quatre vingt combat. ba quatre vingt combat te loo xam musul am ci làmb. léegi bu bëgg. nga limal ma dix adversaires yoo xam ne ñii adversaire nañ ci làmb bu làmb doxee daa war a bëri waaw ñaara adversaire dix non bëri na ëpp na ko sax waaw limal non xam naa quatre waaw instant yi nii maa kan a war a bëre wala sax daan taxaw na mais am na si booy yu bëri yoo xam maag Ibu Afia. dañoo maanaam laaju ma leen nag de maa leen ëpp victoire fuuf. naa ne waaw Ibu Afia. booy dama leen a war a may sens. maa leen ëpp coow maa làmb. Ibu Afia. dañoo war a bëre jeex jàmm. dañoo war a bëre booy dama leen war a yëkkati dama leen war a jël làmb xam leen. jeex jàmm dañoo war a bëre. bébé bis dañoo war a bëre. bébé ak euh, booy bu dëkk fee. ay booy bu dëkk côté kii wakaam bi am na benn booy bu dëkk wakaam tur bi laay fàtte. imposé wala du imposé imposé maa moom sans verdict la bëre nañ mais des naa. ok bu Ngor wala kan. kan Siteu bu Ngor wala yëpp dama leen a war a jël may leen coow booy Siteu bu Ngor dañoo war a bërëb ay morom lañ man booy maa leen jiitu ci làmb. maa leen ëpp ay victoire taxawoon na fi ba xama rek xaw ma lan moo ko yàq kenn xamul. nga jël avance change. c'est que nag. mais yaa gënoon avance change. non non avance change. non du cadre change sax maanaam corona coronavirus bi maa moom suñu combat taxawoon na mais coronavirus moo ñëw dal suñu kaw combat yu amul yëpp yàqu xama rek combat yi amoon yëpp ya xam <laughs> nga te loolu kenn mënu si dara coronavirus bu ñëwoon la mais boo yoon la ñu ñëw ñu bëree xam nga man maa nekk nu nga man booy mujj bëreel da ngay am coow. ndax moo Aliou Seye Junior la fi ne waaw mais mooy loolu booy ay paa rek la ñuy jël wallaahi maanaam booy nañ jël seen morom. ok waxagul ko a bëri ay paa man du ma bëreeg paa de. jàmm mooy sam-sam koo waaw côté yooyu yëpp am naa fa adversaire te parce que lamb gi ñun ñooy mayante xaalis man am naa si boo yu bëri yoo xam te nii man am naa si boo yoo xam ne sax dañ may dañ may jéem a ñoddi xarit te man damay liggéey de man damay liggéey man amul yooyu nañ liggéey nañ mayante xaalis voilà mais ñii ma la wax ni moom am na ak ñeneen ak ñeneen ñu des ñoo xam maa ñoom dañoo war a bëre yee noonu la demee nag. donc mi ngi nii SBT Média la woon ah, seet ba ma seet si woon ah, kenn koo xam ne si xam ne sama diggante moom muy Bou Siteu ah, nekk champion bokk ci la macha allah mais bu weeri fan yi lan la coow li bëri na de. waaw coow li moom bëri na toog gis nga sama oh. star day fees dell maanaam Bou moo toll foo xam ne léegi maanaam comme lu ma la wax sàng rek man nekkatuma mbaru nekkatuma ak ay booy bi mbëru géejawaay la déedéet. mbëru international laa. mais xoolal diaspora bi gars yi nuñ may salancé. sénégalais yi ñii ñi xale yi jigéen ñi xam nga. loolu moo lay wax ne Bou Siteu moo xew. waaw xam nga ni instant yi maa xew samay guddi laa nekk. waaw moo xam nga rek maanaam nii gars yi baaxee la rek. man lépp lu ma am ñi ñu baax ñoo ma koy man mënalu ma sama boobu dara. man ñi ñee ma bëgg di ma defal ay teraanga. ñoo verre yi moom ku si mel ni Bamba nekk fii nii nekk palaasu musaa Gassama mas Ndiarème. nee na ma émission booy def nga ñëw ma jox la verre instant yi nii nii nii dama fa waroon dem jël beneen verre barke Serigne Thiaw nekk Bamba ah, nekk. sama mbir damay yaakaar naa dem nee na ma bu la neexee borom es ma solal leen ku nekk verre te xam naa dañ fa dem mu solal la verre mooy jaay verre yi foofu noonu. marque verre bi qualité verre bi ah, parce que boo xam musul am ci verre XL la. XL moom maa ngi doon barke Serigne Thiaw dafa garaaw yow verre yi boo xoolee da nga xam ne qualité yi. parce que man verre yi ma xam ci ci kii ay photographe la quoi. ay photographe mais yii bamb moo koy joxe bamb maa ngi koy nuyu bu baax borom Massa Ndiarème di nuyu Moussa Gassama bu baax nee na moom émission booy def ñëwal sol verre man léegi mooy loolu sama niveau moo dépassé may def émission di di wane sama bët yi. dafa jot léegi may nëbbatu. ok <laughs> mi ngi noonu <laughs> ñu jaajëfal ko baax a baax a baax baax bu. yow sama nit nga yow saa yoo ko bëggee rek boo ne moon léegi ñu dem sax Espagne ñu dem. wallaahi man diaspora bi ñëpp mooy bëggee. waaw mais nag di wax sama papa la Diop. yow gis nga sama papa la Diop nu mu ma nu mu ma bëggee di ma soutenir di ma jàppale gis nga sama combat bi daf maa soutenir may ma xaalis bu bëri waaw di ko wax ne nag père xam nga damaa bëgg nga jàppale ma ma dem Amérique yokk sama doole per sama papa la Diop. waaw Omar mbay chaque jour ndeysaan si loolu la ñuy waxtaan maanaam man sama niveau. dépassé na may am combat di ko préparé fii te sama combat bi ma am bëgg naa sama papa la jom nga jàppale ma dem Amérique yokk sama doole. xam nga man loolu la laa la la nga ma desel père la sama papa la jom loolu kese du nuy mari kii maman mari magul la jom la boo xam ne day def social am solo si biir géejawaay waa nekk nit ku baax waaw sama papa la jom moom loolu la laa bëgg père nga jàppale ma ma yokk sama doole dem Amérique yokkaat sama kattan bu baax te parce que su ma amee doole damay téye biir géeja waaye mais doole bee fi amul. waaw kon yoon la ma dem New York yokk sama doole dugg dox si suufu New York bi. xam nga làq si làq New York bi. ay coq bee bi coq bee bi. ay coq bi ay ay New York affaire New York yi man dama war di làq affaire New York yi. mais bu New York amul suuf de da bëgg dox suuf. New York bi amul suuf. non am na suuf non amul suuf wallaahi am na suuf lépp lépp tali la. xam nga rek damaa namm di dox si suufu Europe bi xam nga di làq si làq yi. ay ay ay New York ah. no xam naa si ay coq bee bi affaire yooyu noonu <laughs> ay ay ay xamar ak ay yeneen ak yeneen yoo xam te man su ma duggee si dë non loolu làq laa comme bu ma lay nuyu nii rek ne la sawa coq bee bi yees xama affaire yooyu noonu xam nga yooyu xam làq yooyu dafa neex man dafa war dama war a dem Amérique man gaa dañ ma war a teg loxo ma dem mais boobu léegi ma nekkoon 2016 ba léegi ma nekkoon ci làmb dafa jot ma génn yokk sama doole man su ma amee doole géejawaay dama koy téye loxo parce que waaw daam lu nekk si man. yee <laughs> noonu la defee nag waaw jokk bee bi rek làq yi dafa neex.